waaw dama bokk ci ñu coordonné liggéey bi suñu diggante opérateur économie yi. waaye opérateur économie lan mooy doon seen taxawaay ci ndog yi nga xam ne moom la ñu ah, yi de moom opérateur économie bi moom ci jàpp ci ngir sëñ Touba ah, yëmul itam ci commerçant yi rek am na ay mécanicien am na ay maçon am na ay bijoutier am na ay menuisier métallique am na. ay entrepreneur am na xeetu xeetu liggéey bu nekk ci dëkk bi rek parce que yëf yi dañ koy yaatal doonul loo xam ne eh, dañuy bañ mu xat kenn jàpp ni lii yëfi commerçant yi wala yëfi ñi ñu am doole rek euh, parce que ni ci ci ni muy demee liste bi nga xam ne yor naa ko am na ci dañ ci gis ko ñu joxe un million dañ gis joxe cinq cent mille cent mille cinquante mille trois mille mille francs amul daal dara lu ñu xewal kee kenn lu waaye joxe ñu ñu nangul la ko bindu buñ ko bindee tam buñ ñëwee dañ koy jox waa day ñoom it ñoo bu saytu bu ñu koy ndax lettre bi ñuy bind jox ko kii joxe un million moom lañuy jox ki joxe téeméer walla ni jëf ji nga jëfan jox ko diw diw andi na ko agsi na jox la ko su ko defee kooko joxaat la ko muy lu leer nañ ñoom it euh, loolu yëpp bu dajee ci ci ci ñoom it war nañ ñu gis nañu niñ koy doxale def na doxalin wu leer nañ parce que bañ koy tàmbali ay ndogu lañ doon wax mel na ni yëf yi dem na ba weesu ay ndogu loolu doon loo xam ne loo xam ne ñun luñ bëgg lool ndax buñ demee ba gis jumaa ji lépp lu ci euh, aja sensé mu di ay làmp wala ay fil wala ay micro wala ci climatisé yi wala entretien jumaa ji lépp dem ba mu ciy dem loola ak cant lañ ko def jéggi na loolu dem ba ci noddukat yeeg imaam yeeg ak jànkati kaamil yeeg lépp aju ci jumaa ji ba euh, daaw sax yëg nañ ni dem na ba jéggi jumaa ji ba ba am ay jàkk yu bari ab li mu jàkk yu bari yoo xam mbir mi agsi na ci ñoom loolu nag day euh, dafay wane li ñuy wax ne sëñ Tuubaa amul tànki gannaaw yu kanam laam xam ne bañ koy soog a tàmbali 2005 euh, xaw ma 2006 ci jamonoy sëñ Saaliw bañ bañ njëkkee tàmbali foog naa ni un million un million bi manqué woon te foog naa ni bu bu daaw bi bu mu ma juumul bu daaw bi 40 millions yi boo xoolee li ko manqué tuuti la waa mel na ni kon nag toujours day day gën a day jëm kanam waaw léegi itam nag ci biir loolu ñun ñu ngi gën a soññ ñëpp daal dina xamal ni mbir mi xataluñ ko ñëpp ci ku bëgg a bokk ci yi dugal ci sa loxo bu dee ci wàllu opérateur économie yi ak commerçant yi boo jokkoo Cheikh Bara Diop mi nga xam ne moo jiite mu lancé yi wala Moustapha Gadiaga mi ci sama wet wala man boo jokkoo ak ñun. loo loo ci joxe dana dañ ko indi fii teg ko ci ci ci loxol ñi ñi ngi sant nag ñi nga xam ne jàpp nañ ci te yàgg cee jàpp te te tayuñ benn yoon ndax euh, am na ñoo xam ne bañ ko tàmbalee ba léegi mus ñoom manqué am na ci ñoo ñoo xam ne sax dañ koo sa saxalal at mu ne lañ joxe woon foog ñu dolliwaat ci dara ñooñu tam ñu ngi leen di sant xam ne yëf yi daal. Euh, liggéeyal sëñ Tuubaa koo def sa bopp nga nga ko defal lu ci waaye def daal ñu ngi ñaan ci kàttanu sëriñ Tuubaa nga la la nga mën a ba def ko ren bu bu déwénee nga man lu lu ko ëpp tey ñaan yàlla mu defal nu ak wér ak mucc ak fan gudd ak ak wér gi yaaram ak mucc ak mucc le ak wér ak wér le te defal ko bépp jullit bi jaay Xaadimu Rasuul maa ngi tudd Mamadou Moustapha Gadiaga di ab opérateur économique dëkk fii ci tubaa bokk ci daayiratu Muqaddimatul Xidma bokk ñi ñiy taxawu liggéey waaye li ñuy njëkkee no mooy noo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala di julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam di gërëm sëriñ Touba di ko sant bu baax a baax di sant yàlla it ci bi mu mayee ñu fekke woon ko daaw ren itam ñu fekkewaat ko di ko ñaan mu may nun ñëpp ñu fekkewaat ko at yu bëree bëri ci barke weeru koor liggéey bi comme ni ko Moussa waxee rek bu fekkee ne yéen nag ay journaliste ngeen fekkee da ngeen di posé ay questions ñu war leen a tontu ci luñ ci xam bu fekkee itam dañuy wax suñu xalaat rek ñu continuer wax suñu xalaat rek euh, comme ni ko Moussa waxee liggéey bi moom Eh, mi ngi jëm kanam ci kàttanal suñu ndax li ko waral mooy dañ cee amoon ñaanu ku baax Serigne Saliou Mbacke moo lañ ko tàgg woon mu ñaanal nu ci ba noppee ne maa ngi ko ànd ak yéen loolee moo tax mu déparé woon ci un million bu manqué comme ni ko Moussa waxee ba léegi ñu ngi ci ay quarante quelques millions te lépp nag amul kon ci sas amul sas kenn ku ne loo ci def yaa am sa wollante bopp nga def ko ci. ci nam la sooba waaye duñu wax kenn joxel na nga ci at mu ne kanam la jëm kon donc lu leer mooy ci lii itam dafay loo xam ne euh, day ñaari tawféex ndax ci weeru koor moom nit ku woor ba ngoon jot nga jox ko ndogu dafa am li suñu borom ak payam moom suñu borom ko am rawatina itam ñu di ko defee ci keppaaru Serigne Touba gi nga xam ne mu ngi yëg li ñuy des kon ñaari taw fenn moo tax ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax di sant Serigne Touba baax a baax di gërëm nit nag suñu mbokki commerçant yi nga xam ne ñoo ngi ko ànd ak ñoom te bañ ko tàmbalee ba léegi te wóoluñu doyloo suñuy wax ba liñ leen ci wax ñu gëm kon noo ngi leen sant bu baax leen ci gërëm waaye nag sant gi lu baax la waaye lu ci waaye def sa bopp boole ko xam naa di gërëm it sëñ Afe imam mi nga xam ne moo jiite daayira bi Muxaddamatul Xidma ak ñim ko àndal ñépp bi si ñoom euh, ñoo ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax ndax liggéey bu mel nii képp ku la ci boole euh, sant ko rek ko war a ndax liggéeyal suñu borom la liggéeyal Serigne Touba liggéey ci jaami yàlla yi te suñu boroom ab liggéeyam ci gën a gën a gaaw nga di ko liggéey ci jaamu bi kon daal noo ngi wax alhamdulilahi rabil alamin te di ñaan ñu teewee ko at yu bare bare bare te mu ànd ak wér ànd ak jàmm ànd ak doolee ko bañ gën koo jekku yàlla na ko yàlla def ci barke weeru koor kon fekkee am na lu ngeen may laaj bi ngeen ma ko laajee ma wax ci nga xam fekkee ne amul lu ngeen war a laaj. Euh, daanaka mën naa la wax ne international la ñi siy dugal seen loxo ci dëkk bi bari na euh, waa Ndakaaru ñu ngi ci dugal seen loxo baax muy commerçant yi nga xam ne ña nga fa ak opérateur économique ci dëkk Touba te nekk Ndakaaru dafa liggéeyee seeni loxo mi ngi ñëw bu baax a baax ba bitim réew seeni loxo ñu ngi ñëw kon ñi ci jàpp bari ndax liggéey la boo xam ne xanaa ku ko umpale waaye koo xam ne xam nga liggéey bi euh, buñ la ci laajee da nga sawar ndax li ñuy wax fret la fret mooy di yónnee rek saabone fekk ko fa yàlla na yeex na ko hmm. kon nag salaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu waaw asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu ñu ngi nuyu mboolem ñi ñuy seetaan te suñu kaddu di agsi ci ñoom di jiital ci nuyoo boobu nag ak ziar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne tey moo fi toog jotaayu Xaadimu Rasuul di ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi lool te may ko wér. ni ngeen ko waxee liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne moom lay def ci koor gi di liggéey bu am solo boo xam ne ni ko mbokk yi jiitu waxee woon yàgg na mu ngi tàmbali atum 2006 ci jamonoy Serigne Saliou Mbacke yàlla na yàlla yokk leeram te tas ñu ci barkeem moo ci joxe woon digal li taxoon itam Euh, ñu euh, demoon ci moom laaji ko ndigal mooy seetlu gu ñu seetlu woon ne dëkk bu mel ne tuuba ni mu toll ci diine ak Serigne Touba ni mu fonk woon weeru koor war na bu koor jotee xarka na mu dëkk bi soppeeku rawatina barab bu tedd bii nga xam ne fi la nekk ndax ku nekk xam ne Serigne Touba bu weeru koor masaan jot ci njaareem euh, ni mu daan gën a saware daan gën a feeñal mbégteem waaye itam daan gën a giseek taalibe yi loolu lépp di firnde yoo xamante ni fonk weer yi rek moo taxoon mu di ko def kon nag dëkk bii di bu weeru koor jotee lu mel noonu war naa feeñ ci dëkk bi looloo taxoon ñu dem ci sëriñ bi laajoon ko ci ndigal ànd ak ay kilifa yu bari ak ay mbokki taalibe yu nekk ci dëkk bi laaj ko ci ndigal mu joxe ci ndigal digg ci itam ne di ngeen ci dajeeg lu kawe seen jortu def leen ko te fonk ko di ngeen ci dajeeg lu kawe seen jortu loola nag yaakaar naa tey agsi nañ fa ndax ni ko mbokk yi waxee bañ koy njëlbeen gi biñ koy tàmbali xëy na doxin wi gënoon naa gënoon naa diib ni muy doxee ndax ni ko sëñ Moussa waxee yaakaar naa li ñu tàmbale woon matul woon un million te mbooloo mi fi daan daje itam bëriwul ndax dañ daan tànn ci semaine bi lu mat ñaari fan lu mel ni altine ak alxamis daan ko ci def waaye nag dem na ba li ñuy wax naan liggéeyub Serigne Touba dafa am tànki kanam waaye amul tànki ginnaaw te Serigne bi bu la sante ab liggéey da da lay bàyyee njëriñ li yenul boppam yenul la coono bi loolu moo ci am ba tax mbooloo mu baree baree bari di ci di fi teew ba ci atum 2010 ba léegi nag ñu gën a yaatal liggéey bi di ko def bis bu set mu nekk ñaari xaaj jataay jataay yi xam-xam yi nga xam ne mooy conférence yi nga xam ne moom la ñuy def ginnaaw tàkkusaan di ko gunge ànd gunge weer wi ak beneen parti bi ci des di parti ndog yi jataay waxtaan yooyu itam saa yu koor gi jub si gannaaw bu ñu demee ci ki fi nekkal Serigne Touba laaj ko ci ndigal ba mu joxe ci ndigal bu ñu ñëwee li ñuy njëkk a def mooy xool jataay waxtaan yooyu yan tomb lañu war a waxtaane yan tomb yan tem mooy tem yoo xamante ni jamono laaj na ko te askan wi bëgg nañ xam lan mooy gis-gisu lislaam ak njàngalem Serigne bi ci tem yooyu ñu tànn tem yu mel noonu wut ay boroomi xam-xam yoo xamante ni itam mm, seen xam-xam na jëm ci tem tem tem yooyu te mën nañ cee joxe ay ak leeral ñu ànd kook ñoom tem yooyu di fanweeri jataay yenn yi ay fatawa di ay laaj ki tontu yenn yi ay tem d'actualité spiritualité la waaye yenn itam doon ay durus lu mel ne ay njàngale loolu mooy partie bu njëkk bi commission culturelle yor ko beneen partie bi ci des mooy bi ñu wax mooy mbirum ndogu yi muy xéewali ni ma ko waxee léegi Touba Carrefour la boo xam ne du tàqali koog mbooloo jamono bu ne nit ñaa ngi ñëw di ziar ay xew-xew di fi am weeru bu jotee ñu baree bare dañuy ñëw ci jumaa ji dafa def seen i julleeg seen i ziar ak yooyu kon laaj na barab bu mel nii bu amee weeru koor jot danañ ko euh, waajal ba nga xam ne képp ku fi waxtu dog fekk nga mën a nga mën a doge dog sa koor ni ni ni nga ko bëggee te du am benn jafe-jafe loolu itam mooy jëm ci wàllu ndog yi ndog yooyu nag mooy aspect bu am solo boo xamante ni ni ko mbokk yi waxee daa doon liggéey boo xam daa di Muxaddamatul Xidma xëy na moo koy saytu moo yor organisation bi waaye da koo bokk ak mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yëpp ka ci jiitu mooy xalif général des mourides ni ma ko waxee léegi Cheikh Mouhamadul Mountakha ren moo njëkk a dugal participation ci ci ci ci yëf yi nga xam ne ab barkeeloom la moo ci njëkk a dugal loxoom waaye itam njabootu Serigne Touba gi kenn desul ñoom ñëpp it fekk si nañ ko ci loolu waaye nag taalibe Serigne Touba itam kenn desu ci opérateur économique yi dégg nga ni ko waxee léegi ñoom ñoom ñoo ko ànd jamono bu nekk di ko def muy fii ci biir réew mi ba bitim réew kenn desul ñoom ñëpp joxe seen i participation ngir ne nag daayira Muxaddamatul Xidma fii mu nekk day barab boo xam ne bu ñëpp bokk la jumaay Serigne Touba ji buñ ko doon séddale taalibe benn taalibe du nangu ku la ci ëppale kon nag lépp ñëpp moo tax it lépp lu ñu fi def dañ koy ubbi yaatal ko ba ñëpp mën cee dugal seen loxo ndax sëriñ bi kat bi muy bi muy joxe ndigalul jumaa ji booba malaaka yi sàkk woon nañ mu jox leen mu mu jox leen ko ñu def ko ni mu ko bëggee jinne yi sàkk mu jox leen ko ñu def ko ni mu ko bëggee waaye daf leen a xamal damaa amul njaboot damaa bëgg ñu jariñu mu sas taalibe bu ne na indi ñaar fukk ak juróom-ñett ñu tabaxe ko jumaa ji doxin woowa nag ca la daayira Muxaddamatul Xidma nekk lépp lu muy def da koy ubbi yaatal ko ba ñëpp mën cee dugal seen loxo ndax lépp ñëpp du leen kenn ndax lu nekk ku ne ngi ci doxin woow ci la daayira Muxaddamatul Xidma dox ñi ciy sant bu baax a baax opérateur économique yi ak mboolem ñu ci dugal seen loxo ba bitim réew sëñ Assane Diop mi nga xam ne moo nekk foofu di coordonné daayira bitim réew yi ñoom itam fàttewuñu leen ak mboolem ñi nga xam ne daal dugal nañ ci seen loxo ni ko Alaaji Moussa Mbaye waxee du commerçant ouvrier boulanger boo demee ci euh, rapport yi da nga gis métier bu ne da nga ko ci gis loolu mooy mbirum Serigne Touba kon ci gàttal ñaari aspect yooyu mooy euh, aspect organisation yi ku wax organisation nag da nga xam ne dana dana laaj personnel parce que liggéey bu toll nii yaatu nii danañ laaj ban personnel moo koy taxaw ba tax na gis ngeen personnel boobu ngeen gis ci biir jumaa ji daanaka lu mat 250 personnes yoo xam ne diiru weeru koor yi ñoom ñoo fi nekk di saytu liggéey bi séddali ko ci ay commission commission d'organisation bi nga xam ne ñoo yor wàllu ndog yi ak commission culturelle bi nga xam ne ñoo yor wàllu waxtaan yi commission communication bi nga xam ne lépp lu fiy ballee ci wàllu conférence wala wàllu ay reportage ñooy fexe ba mu àgg ci askan wi ñu mën koo gis waaye itam am na commission sociale boo xam ne ñoom itam liggéey bu am solo ni ko euh, Alaaji Moustapha Gadiaga waxee commune yëf yi jéggi na jumaa ji sax ndax sëriñ Sidi Muxtaar yàlla na yàlla yokk leeram bi ñu fi demee mujjee dem daaw def ne na ngeen ko fonk te yaatal ko bam ba bam daj tey gis nga barab yu baree bari ñu di ko roy loolu mooy mbirum sëñ tubaa jàkk yu baree bari di ko roy loolu itam commission sociale am na liggéey bu am solo bu mu ci def yemul ci loolu waaye commission sociale am na jéego bu am solo boo xam ne mu ngi koy def ci biir koor gi mooy gis na ne jumaa ji waa daare kaamil yi fi nekk am am imaam yeeg noddukat yeeg personnel yi ñenn ñi ay mag lañ te dañuy jànkoonteeg yenn feebar yoo xamante ni dana jafe loolu ñu am jotu sax di ko di ko jéem a traité wala yu mel noonu koor gi occasion lay doon chaque année ñu organiser ci benn consultation gratuite boo xam ne ci ay domaines yu bari ci ay ophtalmologie ci ay urologue ci ay cardiologue ay spécialistes yu bari di ñëw ñu ñu ñu di leen toppatoo fexe bay saytu seenu seen seen wér gu yaram di fexe ba leen di taxawu ci wàllu ay ordonnance ak yooyu loolu itam liggéeyu social bu am solo la ndax ku wax weeru koor wax social weeru koor lépp lu ñu ci def rek social la ndax weeru ngëneel la woo xam ne lépp lu ci waaye def ci lu baax suñ borom dala koy fulal loolu mooy liggéeyu commission sociale ginnaaw bi am na commission communication boo xam commission finance boo xam ne ñoom itam ni ko Alaaji Moussa waxe ñooy saytu addiya yi ñu fiy indi lépp lu fi waay indi donte benn doomu tàndarma la danañ ko recensé xayma ko ci xaalis lu muy jar bind accusé de réception jox la lettre tontu wane ne li nga joxe woon accès ne jaar na ci diw ñoom itam liggéey bu am solo boobu ñoom ñoo koy def. waaw boo xoolee ci xayma li fi ndogoo par jour. tey chiffre yi ñu mujj a am nga xam ne démb recensement wu démb bi wax nañ ne 3300 personnes ñoom ñoo fiy dogee ndax bu ñu xoolee li ñuy jënd ci mburu bis bu set danañ jënd 1500 baguettes 1500 baguettes nag yaakaar naa tey boo ko xaajoon ci digg bi rek mu doon ñaari xaaj loolu 3 mille lay doon 3000 lay doon donc kon bokkut ak yeneen xeeti xéwal yi nga xamante ni dañ ko fi indi gën jaa néew daal 3000 5 3300 personnes danañ fa doge ci recensement yu mujj yi loolu nag. mën nañoo expliquer li ko waral ndax mbooloo mi daawul toll foofu surtout ci fan yi ñu nekk ndax euh, ku nekk xam na ne Cheikh mun Mountakha fii lay defee weeru koor bi fii ci kër Sëriñ Tuubaa gi ci jumaa ji te mbooloo mu bari dañu fi ñëw di ko ziar si ko nemmeeku te bu waxtu dog jotee heure julli bi jegee dañuy dugg ci biir jumaa ji loolu moo waral effectif bi di di di yokk uh, ci atum ren bi waa dépense bi bu ñu sukkandikoo ci rapport daaw bi ni ko El Hadj Moussa waxee mooy dem nañ ba jege 40 millions parce que 36 millions et quelques demoon nañ ci ci ci budget te ni ma ko waxee bu ñu xoolee li ñuy financé ren ci jour yi nga xam ne bis bu set 900000 bu dee ci consommation budget consommation bi moom 900000 la sans compter nag budget de fonctionnement yi nga xamante ni commission yi moom la ñuy yooyu bu ñu ko xoolee kon mën nañ ne budget bi dana àgg 1 million 200 mille par jour. un million deux cent mille nag boo ko xaymaa par jour te li li ma wax léegi day gën a yokk doonul luy taxaw ndax lu mbooloo mi gën a yokk ndax ku nekk xam na bisu lu mel ne bisu laytul xadar mbooloo mi dafiy bari bisu ajjuma mbooloo mi day bari ay jour weekend yi ñuy jege Dakar ñëw itam bëgg ziyaara bëgg a nemmeeku wàlla jumaa ji dafay bari jour yooyu mbooloo mi ci lay gën a bari bokkut ak jour yu yeneen jour yi ordinaire yi nga xam ne moo am kon mën nañ wax ne ren bu ñu bu bu ñu doxin wi bu doxee nii bu koor gi jeexee waxuma la 40 millions waaye danañ séentu sax ne danañ jege 60 millions jërëjëf